salaamaaleykum yéen waa rajo Baol Média FM ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam kenn ku nekk ñu ngi la fekk fi nga toog di la jox suñu ñaari loxo di la nuyu nuyu bi gën muy nuyu murit di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi fii ci Baol Média rajo bi nekk ci yoonu xàllu mag bi dëgmal tuuba tey seen émission tey fii la ñu ñëw pour waxtaan ak yéen li nga xamante ne nii mooy xew ci biir dëkk bi ak li nga xamante ne nii moo gën a siiw ci réseaux sociaux yi ñu war see waxtaan bu baax a baax ndax waxtaankat waxtaan la jamono dina toll foo xamante ne nii képp koo xamante ne nii am nga lu nekk sa bopp wala lu nekk sa xel wara nga koo waxtaanee waroo toog toujours rek di seetaan nit ki nga xamante ne nii moo gën a niil mën naa doon ki nga xamante ne nii toujours du yokk si dara du yokk si xel du yokk si xalaat du def benn jëf boo xamante ne nii day positif kooku mën naa jàpp ne dundam bi yëpp day asaar mais nit ki nga xamante ni tamit xam na dara si boppam wala xam na dara si xelam te jéemu see partage ak kenn loolu tamit day gën a metti kon maa ngi feggoo ak soxna Warxa si émission bi dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu ñu doog a jàll. Mm-hmm. Moustapha nuyu naa la nuyu naa auditeur ak auditrice yu rajo Baol Média FM yëpp. nuy nañ aussi internet yu Baol Média TV ñu ñuy suivre ci YouTube beeg Facebook bi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax euh, di leen wax ne rek seen émission tey fii la xam naa moom tey moom ñoo fi xaar du Bale ak Khoudia te woo xam naa gars yi luñ dégg rek dañ ñu koy euh, jéggal euh, tey fii la tey nag fi ñu fëlee bokk na ci réseau sociaux yi ampleur bi nga xam ne jamono bi am na ko seen nañ ne semaine bi sax laay wax wala sax ñu ne trois jours yi seetlu nañ ne ci réseaux sociaux yi jeunes yu bari ñu ngi leen di jàpp di leen yóbbu kaso te la leen koy yóbbee mooy ay commentaires yu ñuy def euh, ci yenn publication yi rawatina ci côté politique bi euh, démb sax boo digloo Ousmane Sonko ci discours am bi mi ngi ci euh, yeewaale jeunes yi di leen wax ne bu ñuy commentaire wala ñuy dem ci réseau sociaux yi ñuy xam la ñuy wax ah, ba tax na tey jii ñu fas yéene ko rek euh, gën a yaatal euh, Moustapha ñu fas yéene wax waxtaanee taxawaayu jeunes yi ci réseaux sociaux yi ndax euh, réseaux sociaux yi wax fa dëgg yàlla li muy yàq moo ëpp li muy defar ci kaw nga xam lan moo ko tax a jóg. ci xaw kaw nga xam empleur bi nga xam ne moom la mën a def ak effet yi nga xam ne moom la mën a def ci sa dund. waaw li nga wax am na solo lool ndaxte boo xoolee semaine bii nga xamante ne nii génn nañu ko mën naa ne génn gun si ndax semaine bi des na ba léegi. Mm-hmm. mais boo xoolee jàpp nañ si loo xamante ne nii si ay sën bëri na lool. Euh, ñoo ngi dégg ñi naan 400 et quelque ñi naan 300 et quelque mais lépp dafa doon ñoo xamante ne nii. am na ñoo xam ne dañoo topp seen nasu bakkan pour def loo xamante ne nii seen amour dong moo leen si xiirtal pour ñu def loolu am na ñoo xamante ne tamit yàlla dafa bindoon ne bala ñoo dee dinañ dugg kaso loolu it mënul ñàkk mais nit koo xamante ne nii yaa ngi def li ngay def pare di xam ne man de li may def bala ma fee jóge peut-être police mën na ma fee fekk mu jàpp ma wala bu ma ñibbee ba suñu kër mën nañu maa jàpp lépp looy def daal di si dute loo xamante ne nii jàpp nga ne naa nekk te loolu nga teel ko bàyyi moo la arrangé ndaxte nit ki li nga xamante ne nii da koy lor saa bu si nekkee toujours war naa xamante ne lii du ba lii du lu baax lépp loo bañ dee fekk la sa rek booye boo nga bàyyi ko lépp loo xamante ne nii yaa ngi koy def te bu ma si dee fekkante du ma ko réccu loo si gën a mën a yokk yokk ko bu baax te loolu nag la si njëkk mooy ngay liggéey ndaxte liggéey jaamu yàlla la mm. wala ngay def li nga xamante ne nii moom la sun mag ñi nekkan daan def waaye toujours yaa ngi si internet bi bu dee yow position vidéo yaa ngi topp si ñi xamante ni ñooy dugal ay vidéo ngay def ay commentaires yoo xamante ni dafa négatif li gën a découragé loo nit ki mooy nit ki def li mu def donte neex na la wala neexu la boo ko mënta euh, maye kër wala nga commentaire ko commentaire boo xamante ne day positif romb ko nga jàll. mais mm. nit ki def mbiram sonn si bee bëgg a dee nga dugg si biir saaga ko wax ko loo xamante ne nii dina ko mën a découragé loo loolu baaxul nit ki liy yokk courage am toujours moo koy may doole pour mu dem fi nga xamante ne nii fa la bëgg a dem. waaw mhm. ñu siy bàyyi xel bu baax. Mhm, ñu ci bàyyi xel bu baax kon eh, yéen ñi ñuy déglu yéen a ko déggandoo bu ñu nee réseaux sociaux yi Facebook ma nga biir YouTube ma nga ca biir TikTok bi ma nga biir Instagram ma nga fa Twitter ma nga fa. waaye xam naa ne jeunes yi moom euh, réseaux sociaux yi ñu si gën a bëgg bokk na ci TikTok bi nga xam ne dañ koy soog dañ koy soog a xewal. waaw loolu loolu bokk na si li nga xamante ne nii moom lañ gën a bëgg ndaxte ndaw mhm. loo gis fi mu toll nii daanaka si lay yendu suba ba ngoon jot. Mhm. te TikTok nekk na koo xamante ni yow yaa koy fay mais yow moom fayu la. Mhm, boo xoolee côté Sénégal gii nii ñoom ñooy fay TikTok. toujours minute bu nekk li TikTok di lekk si ñoom du ko lekk si benn euh, benn euh, place si ay Facebook yooyu yëpp. TikTok moo ëpp loo xamante ne nii moo ngi koy gagné si ndaw ñi ba si mag ñi sax ndaxte bu njëkk mënoon na ne loo xamante ni ne ay ndaw doo nga si gis mais mhm. léegi fépp foo dem bépp business boo dem di nga ko fekk mhm. ñu ko fay présenté di ko fa jaayee foofu noonu mhm. am na ñoo xamante ne nag li ñuy def si TikTok man bu ma leen gisee dama si kontaan lool wax dëgg fa yàlla mais foo fekkee ñi nga xamante ne dañuy gàmm fekk fa ñoo xamante ne dañuy raas dem loolu mënul ñàkk àdduna moo bindee noonu ndaxte dina dem ba si biir jumaa di fa sàcc te jumaa ñu ñu fay sàkku jaamu yàlla ak jë jubluwaat sa yàlla si biir TikTok boobu ak wàllam internet si la ñuy xuusee. parce que ki ki nga xamante ne nii mooy Baye Mass. dafa génne woon démb benn son boo xamante ni yëfi dof la tudd. muy wax ne ñi nga xamante ni dañuy def yëfi dof ñoom la gën a siifur. si comme ñi nga xamante ni dañuy def lu positif. waaw ah. lan moo Sénégal boo jëlee yëfi dof nga def ko. da ngay am benn tur ah? ak boo jëlee nga xamante ni da ngaa sonn si li ngay liggéey. Mm-hmm. nekk si toujours duñu la bàyyi xel. da ngay ki nga xamante ni day jàngale njàngam diine boo duggee da ngay xool ay vie day tuuti lool wax dëgg fa mm-hmm. yàlla nga gis ki nga xamante ni daanaka saaga mooy point fort am kooku ñoom ñaar dañ leen di comparer mm-hmm. maanaam seen niveau sax du bokk mm-hmm. seen niveau du bokk si si saayir waaw loolu nag day boo boo xoolee da nga naan si jikko yu yàqu la mais dina doon loo xamante ni tamit dinañ ko mën a duut baaram si benn côté ndaxte côté bi nga xamante ne di nga ko mën a duut baaram mooy ki nga xamante ne nii am na temps temps bi nga xamante ne nii dafa seer si lépp loo ko yàq dafa war a doon lu ko jar ni sa temps boobu nga am ko di ko di ko di ko topp kenn nit koo xamante ne li muy wax benn mënoo see jële xam-xam mënoo see jariñe mënoo see jariñ kenn te mënoo see am benn lenn loo xamante ni mën na la koy yokk hmm. loolu moom perte pertement la mais ki nga xamante ni nag lu mu des suba ba ngoon jot mën na laa jàllale pare mën na laa jariñ hmm. kooku jàpp naa ne nga topp ko moo gën hmm. mais nga xëy nekk si internet suba ba ngoon jot nekk si di commentaire wala ngay déglu koo xamante ne li ngay déglu amalu benn intérêt mhm. loolu noonu baaxul ba tey tamit mën nanoo ànd ak ñi nga ñoo ñuy déglu képp ku ñuy déglu te bëgg a tàbbi si biir émission bi mhm. mën ngaa def mhm. ñu yóbbaale suñu émission tey fii la ndaxte tey thème bii la jàpp na bi war na mën a gindi nit ñi si yu bëree ah, bëri surtout mm-hmm. ndaw yi waaw surtout ndaw yi waaw war nañ si mën a wax bu baax am nañ si pas de responsable mm-hmm. kon ñoo ngi xaar ñëpp di si xaar seeni question mm-hmm. noo gisee loolu nga xam ne mooy yëf daf euh, son Baye Mass bi euh, yëfu dof comme ni mu ko ni mu ko waxee noonu noonu sax la demee parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci euh, YouTube bi wala ñuy nekk ci TikTok bi di def ay jëf yoo xam ne daanaka amul benn njariñ amul amulul la njariñ yow mi nga xam ne yaa koy seetaan mm. amulul njariñ moom mi nga xam ne moom moo koy def xëy na amal na ko njariñ amal na ko njariñ ndax euh, ay vues lañ koy fay mm. euh, même bu fekkante ne ni TikTok fayu Sénégal moom moo ngi ciy amaale marketing ndax mu ngi mm. ciy amaale ay sponsor yoo xam ne ñi ngi sponsoriser ay vidéo wam mi ngi ciy amaale ñoo xamante ne ni mi ngi leen di defal ay publicité euh, di di ko di ci jariñu mm-hmm. di ci jariñu mais problème bu mooy jariñu googu mu ci jariñu est-ce que tamit njariñ lu baax la ndax njariñ loo xamante ne nii ñu ci bëri ñii dañuy wuññi seen i seen i seen i awra. Hmm. moo xam muy ci jigéen ñi mu ci muy ci góor ñi. Hmm. tiktok bi lu nekk nga ci gis sama mbokk jigéen ñi nag moom ñoom ñoo ci rawate hmm. ndaxte eh, jàpp nañ ne eh, tant que wala tant que solo wuñu nenn eh, dañuy yaakaar ne góor ñi amuñu ci ñoom soxla alors que ñooñu noonu di ñëw di la wuy si ñu ñëpp amuñu ci yow soxla mais la nga xam ne moom ngay exposé ci internet bi loolu lañ lay wane bokk na ci li nga xam ne tamit. réseaux sociaux yi am na impact boo xam ne def na ko ci société bi muy ñàkk gi nga xamante ne nii ñu bëri ñu ngi koy ñu ngi koy jooytu. Hmm. réseaux sociaux yi joué na ci ndax tey jii da ngay imaginer ma am sama benn mille francs xalaatuma ci investir dem jënd ci benn marchandise bu mille francs wala marchandise bu cinq mille francs dem jaayaat ko am ci au moins 6000 wala 7000 francs hmm. la xalaat mooy naa dem jënd ci passe internet su ma xëyee suba ba ngoon ma yendu ci TikTok bi su ma génnee TikTok dugg naa Instagram fenn fu nekk dugg naa te comme ni ñu ko waxee sànq bi ñuy commencé hmm. amul benn application bu gratuit application bu tubaab bi defar nga installé ko sa téléphone gratuite ndax sa soo ko fayul yaa ngi koy fay ci internet bi mhm. yaa ngi koy fay ci internet bi donc li nga xam ne waroon nga koo def ci sa bopp euh, nga perte ko muy ci xaalis ba pare pertaat ko aussi ci temps bi nga xamante ne ni waroon nga ko cee am perte de valeur yi aussi lu ci bëri euh, ñu ngi koy nemmeeku ne réseaux sociaux yi dafay am impact boobu mhm. am na ci tamit lenn loo xamante ne ni dafay am muy euh, jël loo moomul. Mm-hmm. réseaux sociaux yi joué na ci dinaa ci dinaa ci développé. Euh, dem aussi dugg ci loo xamante ne nii xëy na gënul ndax jigéen ñu bari ñu ngi dem di jaay seen bopp euh, te amaana bu dul woon ampleur bi nga xam ne réseaux sociaux yi am na ko duñu ko am ma expliquer lan moo lan moo tax ma wax ma wax loolu. muy mm-hmm. euh, tey jii nii man ma toog sama kër man war xaa gis sama benn moroomu jigéen. muy wane loo xamante ne nii leer na ma ne lii nekkul léegi man damay jàpp ne kii li muy wane euh, loolu moo am. Mm-hmm. dund boobu lay dund. Mm-hmm. parce que nit ki li mu bëgg nga xamal ko ko rek loolu la lay wan. Mm-hmm. Euh, am na ñoo xam ne du dañuy dem ci benn place wala dem seen kër benn xarit am na ñoo xam ne doo leen gis mukk ñu def vidéo seen kër. seen kër xarit la ñuy dem wala ñuy cotiser di luye appartement di fatase di dem. di wala di waaw kay di dem di def ay shooting léegi nag yow da ngay da bëgg a mel comme kooku da ngay bëgg di toppandoo kooku wala ñuy dem di luye oto di dawal wala àbb seen oto xarit yi di dawal léegi yow bu fekkee da nga bëgg nag di toppandoo kooku di nga dem ba di nga dugg ci euh, loo loo xamul euh, seetlu nañ ko fi euh, récemment ci ci ci kaawu kii. Sambaka Sambaka mm-hmm. du gis nga ko mm-hmm. moom réseaux sociaux yi li mu ko yóbbee ko bi ñu ko jàppee ci euh, jël loo xamante ne ni moomu ko lu mu wax day génn télé. Mhm. wala day génn ci TikTok bi ñu ko koy yaakaaree te amu ko. kon mhm. lool la TikTok bi bul jàpp ne kenn koo xam ne rek mu ngi lay wan lii loolu noonu moo nekk ci moom seen yu bëri ñu ngi dem di jaay seen bopp mu ci jigéen ñi ba ci góor ñi am na góor ñoo xam ne dañuy jaay seen bopp. Mhm. Ah, muy ci góor ñi di ci jigéen ñi di dem di defe naka su dul noonu te dara waralu ko lu dul topp réseaux sociaux yi te xamuñu naka lañ koy utiliser. waaw wax nga lu leer wax nga lu leer ndaxte gis nañ ñoo xamante ne nii sax si événement yi nga xamante ne nii moo passé le 16 bi passé li leen sànq lii ko gën a waral daanaka wane seen bopp si réseaux sociaux si la bokk ndax gis nañ ay palaas yoo xamante ne nii mm. ñëw nañ ñu dajji ko ñooñu dañoo doonoon ñoo xamante ni dañ doon fésal li nga xamante ni moom la ñuy def mm-hmm. si si réseaux sociaux yi mm-hmm. ba suur i palaas xamoon na ne palaas bi ñu jëm mm-hmm. ki fi nekkoon daa nekkoon si réseaux nii moom lañ sa mën a am doon na loo xamante nii ñaawlu nañ ko lool ba fa ñaawlu yem ndaxte nit ki buñ la def buñ ko defee loo xamante ne nii metti na bu dee yow metti na la si sa xol war nga koo yëkkati sa làmmiñ ba ñëpp dégg ko boo ko mënee faj nga faj ko boo ko mënta faj nag ba sa mujj mooy nga ñaawlu ko si sa biir xol ñaawlu ko si sa biir xel ñaawlu ko si say xalaat ñaawlu nañ ko lool waaye ba tey réseaux sociaux yooyu nga xamante ni si la ñuy waxtaane dafa doon loo xamante ne nii ndaw ñu bëri si lan ndaw jëm ndaxte tey ndaw loo gis ubbi na ab kontam daal di taxaw di sa def loo xamante ne nii moom la neex mm-hmm. mais li si gën a baax te te te te ñëpp joxoñ ko duñ duñ ko def koo gis daanaan fi mu toll nii dëkk bi ñu nekk nii boo saagawul duñ la déglu te loolu nekkul mhm. mënoo doon gone gu ndaw ne man bu ma saagawul duñ ma déglu te gone gu ndaw mooy dooni magam ëllëg mais mën ngaa doon gone gu ndaw dugg ko fenn toll ko fenn na yow sa cible bi nga xamante ni moom nga njëkk a mooy saaga loolu mënul nekk da ngay gis ñi nga xamante ni ñu ngi saaga saaga yi pour la tax mu jig leen nekkuñu biir Sénégal mhm. ñi fi dàq wax wax ju ñaaw di saaga mhm. di di saaga toujours nekkuñu Sénégal ki ni nag moo nekk ci biir dëkk bi di def di wax li ko neex yàgg-yàgg dina tasanteeg la nga xamante ne nii foogoon na ne du mos a dajeeg moom si dund gi muy dund si Sénégal mhm. beneen bi si topp mooy mën ngaa nekk si réseaux sociaux yi di def li nga xamante ni moo la jariñ jariñ sa askan nit ñëw fekk la fa soxorale li ngay def mu jariñ la jariñ sa askan mhm. ndax foo gis ku baax da ngay gis sa wet ga goo xamante ni nii dafa bon loolu moo am si àdduna te du mos a jeex mhm. foo gis ku baax gis fa ku bon moo tax nit ki nga xamante ni dafa nekk si wàllam réseaux yi di si bay waaram na seet fi muy teg tànkam bu baax a baax a baax ndaxte àdduna nekkul na ñëpp ñoo la bëgg. Hmm. nekkul na ñëpp ñoo la fonk nekkul ne da nga am ay fan si rek amoo ay noon hmm. nit ki nga gis ñëpp bëgg ko jàppale ko ku nekkul si yoon bu baax bi ndaxte àddu àdduna duma wax Sénégal àdduna. Hmm. ñi fi ëpp tur ñi di leen dégg fu nekk di leen dégg toujours ñooñ ñoo fi ëppoon ay noon mën nga jël boo doon jël exemple fi ngay fanaan mais ñi nga xamante ne nii daa maanaam kenn bëggu leen la ngay def nit ñi dañ koy boycotté bàyyee ko ne mais nag li gën a metti si mbir mi mooy ñi nga xamante ne nii dañuy wax liy jëmal réew mi ginnaaw ñooñu leen gën a jox bopp mm-hmm. man loolu moo ma jaaxal gën a partagé mm. ñooñu ñooy gën a nekk ñooñu ñooy gën a nekk au devant mm. te aussi euh, médias yi tamit dañu ciy joué parce que da ngay gis koo xamante ne nii mi ngi ci réseaux sociaux yi suba ak ngoon te la muy def amul ci lenn loo xamante ne dafay participer ci développement réew mi ko kooku la ñuy jël. Mm-hmm. Euh, mettre ko au devant kooku la ñuy jël. di ko mm-hmm. ko invité du coup keneen ki nga xam ne dafa toog ci ruqam danaa man tamit euh, téemaa def ni diw. Euh, di wax waxi def wala may mhm. wala may jëf naka sudul noonu ndax mhm. ñu ndax kii ma gis nañ fi ci réseau sociaux yi jigéen yoo xamante ni dañ doon sol yiw mhm. bi ñuy soog a commencé nit yi di leen topp mais dangay dem ba ci biir nga gis ne ñii nii comportement bi ñu amoon sax léegi dañ ko changé lu tax ñu changé ko parce que xëy na comportement boobu bu ñu ci continuer lañu bëgg dëgg-dëgg duñ ko am donc dañuy dem ba dañuy mujjee changé réseaux sociaux yi dem ba mujj soppi ñu nekkaat ci yeneen yeneen ak yeneen affaire waaw li nga wax dëgg la dëgg la ndaxte gis nañ ñoo xamante ne nii doonte seen jëmm doonul jëmm sensé wu kaay mais dañuy topp nit. Mm-hmm. topp nit ki nga topp di ko topp sa ay jikkoom. Mm-hmm. boo yow sa jëmmi bopp da mujj sensé ndax nit ki ki nga xamante ne nii bëggoo mu sori si yow lool. Mm-hmm. bul ko fréquenté. mën nga koy fréquenté sax te du sori si yow mais nit ki nga bàyyi xel toujours lépp lu mu nekk nga jéem see nekk. kooku pour mu wàll la day yomb. leen naan ko bala ngaa lakkale boo séenee sal gof di lakk nga am sa néegum ñax da ngay dem teel koo xàddi mm-hmm. mais yow mënoo di seetaan dama daan seetaan si si si benn émission boo xamante ne nii nit ki nga xamante ne ni moom la ñuy invité toujours day wax loo xamante ne ni moom lay dund. mais li muy dund nekkul dund boo xamante ne ni baax na si ñëpp. mais moom baax na si moom. mais tey jii yow dara mën na laa jig te du ma jig man. ndaxte nit ñi bokkuñu te fa yawee du man eggu fa. moo tax yow mi nga xamante ne nii toujours yaa ngi nekk si internet bi di ko topp bul ko toppee rek sa amour bopp. ndaxte nit ki lépp loo xamante ni da say dem te dem see xolam loolu mën na ko gaañ moo tax li ngay dem toujours dafa war di ak sa mais bul ne man damaa nekk koo xamante ne nii. dan maa war a dégg fii wala dan maa war a dégg fee ba nga jaaree ko noo xamante ne nii noonu du la arrangé loolu baaxul te du yoon te du la jig tamit nit ki lépp loo xamante ne nii mu ngi siy dox di si nekk dafa war a doon loo xamante ni da koy arrangé mu baax mu jikkoo boo xamante ni da ngaa génn si wàllam TikTok. da ngay duggaat Facebook. nga dem mm-hmm. foofa noonu foofu moom daanaka nit ñi fa la ñuy jaayee seen bopp. Mm-hmm. da def sa photo def wala nga def sa numéro affaire yooyu noonu. bind mhm. si lu la neex wax si la la saf. lesté après nit ñi tàmbalee di la jël ay PF yooyu noonu ñii di la woo. lesté mhm. loolu tamit nekk loo xamante ne nii mënta doxal ab dëkk. Mhm. te yooyu nga xamante ne nii yëpp ñooy dansé benn soqeekoo si Sénégal. bitim réew la soqeekoo mais dafa dikk Sénégal nag waa Sénégal mel na ñoo ko moom loolu mooy problème bi. Ah, en plus euh, utilisation bi. amuñu ci ay limites. Mm-hmm. Euh, parent yi aussi euh, contrôle bi xaw a des ci xale yi ndax boo xoolee ba lu ci mel ni que TikTok bii nii euh, chinois yi am na ci yenn heure yoo xamante ne nii seen doom du ko def ci TikTok. Mm-hmm. am na ci benn temps boo xam ne boo ko defee ci TikTok bi TikTok daf lay bloqué. doo mën a xëy suba ba ngoon ngay yendu ci TikTok bi. Mm-hmm. xoolal ñun li ñuy def ci TikTok bi dangay dugg na xaaral ma ma ma ma divertir cinq minutes boo duggee. ba ngay xool heure mën nga fa am 30 minutes waxuma la 30 minutes waaye da nga fay def sax une heure de temps. da nga fay def sax une heure de ba pare tamit euh, euh, li li gën a grave ci réseaux sociaux yi mooy que ni tey jii boo duggoon euh, TikTok nga tàppe lëz bawol bu subaa lëz yu nekk si àdduna bi la lay wax donc da li ngay li ngay gis tey ci ci ci ci ci ci nu mu ci ci TikTok bi tey muy TikTok di Instagram ba ci même YouTube sax dañ dañ lay topp. Euh, donc loolu moo gën a graaw day mel ni koo xamante ne ni dafay liir ci sa xel koo xamante ni da nga ko rek bu subaa mën nga daje ak yeneen vidéo exactement da ngay dajewaat yeneen vidéo dajewaat ak yeneen vidéo yu bokk ak yi nga xam ne moom lay def koo xamante ni tamit day def comme motif bi muy def moom da ngay exactement da ngay dem ba dangay ngay mel ni dangay nekk benn benn robot ngay nekk tey jii nii dafa ma lay dama lay jox benn exemple rek nga hmm. duggoon Google bëgg jënd benn téléphone nga tàppe téléphone sàngam. Mhm. bind marque téléphone bi bu subaa soo duggee YouTube publicité bi nga xam ne moom la la YouTube di indil daf lay indil publicité site yoo xam ne dañuy jaay loolu. Mhm. nga duggaat feneen comme li ñuy wax rek nit ki boo bëggee xam personnalité bu la joxee téléphone am bu dugg ci ay appelam bu dugg fenn demal YouTube. Mhm. boo demee YouTube publicité ya nga fay fekk la muy ëpp lu muy xool moom ngay moom nga fay fekk boo duggee TikTok am la muy ëpp lu muy xool tey jii nga nekk Euh, à chaque fois yaa ngi seetaan ay woykat ay artistes da ngay dem ba su fil d'actualité bu TikTok. lool kese moom moo ciy nekk kon. Mm-hmm. Euh, réseaux sociaux yi nañ ko gën a bàyyi xel parents yi nañuy gën a bàyyi xel xale yi tamit di di contrôler euh, rawatina wifi bi nga xamante ne nii dañ koy xëy taal ko suba ba ngoon du fay. xale yi nekk ci wifi bi xale yu bari seen jàng yàqu na seeni moyen ñi nga wàññeeku. Mm-hmm. ñu jàpp ne leneen la ñii naan grève yi ñii naan lii mais xale bi nga xam ne tey xëy na jàng grève. wàcc au lieu mu réviser leçon yi mu amoon bu wàccee xelam du xalaat leneen lu dul TikTok. mais est-ce que est-ce que parents yi ñoom fi mu toll nii mën nañu dara ci côté boobu ndaxte boo xoolee ñenn si ñi ma ko war a wax ñoom ñooy jël ay téléphone di jëndal ko seen doom yi jox leen ko pare jël wifi ñu defal leen ko ci biir kër gi. mais nga am heure boo xam ne bu jotee nga fay téléphone mais xale bi nga xamante ne nii da nga koy bàyyi ak téléphone am guddi kooku mënoo ko contrer ne da ngay fay téléphone am. tey ko dina am heure boo xam ne mën ngaa jël téléphone ne ko heure tel bu jotee ñi nga xamante ñoo ëpp si xale yi nag bu nekkee ak seen yaay la ni nekkal seen papa nekk sous région bi wala mu nekk feneen mm-hmm. da si kooku bu yaayam te yaay ak doom danoo jege. Mm-hmm. bu yaayam toppee amour bi am si doom bi mm-hmm. bàyyee ko est-ce que loolu du ko sànq mais amour boobu noonu moom lañu war moom la yaay war a bañ a topp ndax amour boobu soo ko toppee moom mooy dem ba yow da nga koy bañ a jooyloo bu mu nekkee amour bi mu koy bëggal daal après moo lay gaañ boo doonee moo lay gaañ parce que am na fi gis nañ fa ba tàyyi ñuy def ay vidéo ay appel vidéo muy fuite. Mm-hmm. ñuy ñuy génn léegi imaginer kooku noonu buñ ko teeloon a artu wala ñu teeloon koo xamal danger bi nga xam ne nekk na ci réseaux sociaux yi ndax sama classe gi kat dañ ciy nekk rek waaye xamuñu ci dara am na ñoo xam ne mënuñoo sax liir mm-hmm. léeg-léeg da ngay da ngay def vidéo ba pare ñu indi la envoyé wala annulé. nga bës envoyé lu leer lu leer chaque jour nga gis koo xamante ni leer na la lii nii bañ a xam ko si dugal rek waaw kay ñàkk xam moo tax mu dugal ko statut chaque jour da nga koy gis man am na un jour gis naa benn kilifa boo xam ne statut boo mu dugal <laughs> maara day boo boo gisee saxal day ci la mu dugaloon statut te naa ne la ci jublu woon du woon dugal ko statut mais après supprimer mën ne jublu pour envoyé sax ndax léegi si day ay whatsapp yoo xamante ne nii boo xasee ba envoyé boo xasee ba dugal moom pare na xaara 24 heures yi mat mu jeex. boo supprimé da ngay sonal sa bopp. mais am na ñoo xamante ne nii li nga xamante ni bëgg nañ ko def carrément. seen mhm. yaay di leen ko aay seen papa di leen ko aay dañuy dem si seen kër xarit mu yombalal leen ko. Mhm. te loolu moom si seen i xarit lan war a joxoñ baaraam tuuma wala ñoom lan war a joxoñ baaraam tuuma si mhm. seen jëmmi bopp. te xam nga loolu tamit lu ci lu ci bëri dañ parents yi dañ cee war di waxtaan ak xale yi euh, si bu ñuy nekk ndaw. par exemple tey jii nii euh, boo toogoon ak benn xale tubaab. muy ngay seetaantal di seetaan ba benn film ñëw ñu gis ci moyen de douze. Mhm. moom mu leer ko ne amul douze ans day jóg dem. waaw ah, ñun dangay gis ñu bind moyen de seize xale bu am cinq ans toog di seetaan. bala bu ko seetaanul sax ba demee jël téléphone. am léegi nag yow parent booy seetaan télé tey ba gis moyen de douze ci film bi nga ne ko film booy booy seetaanati tele ba gis moyen de nangam. te yow mii amoo âge bi xamal ne li waroo koo seetaan fayal tele bi wala nga zappe dem ba ci chaîne tubaab yi sax bu ñuy dem ba waaye teg programme boo xam ne dafa sensible mm. wala programme boo xam ne xale waru koo seetaan da ngay gis dañuy dugal benn euh, bande annonce bu ndaw mm. pour wax ne programme bii di ñëw bu fekkee euh, mën na heurter sa sensibilité wala dara mën nga zappe nga dem nga seetaan leneen mais ñun duñu du ñu def loolu duñ doxalee noonu te aussi duñu waxtaan ak xale yi ba ñuy xam xale yi bu dès le lañu war di waxtaan ak ñoom réseaux sociaux yi lii moo ko tax a jóg am na réseaux sociaux yoo xam ne mën nga ci liggéey mën nga cee gagné. Mm. ndax nit yi ñi nga xamante ne nii xam nañ dëgg dëgg dëgg réseaux sociaux yi ñu ngi ciy liggéey. seen mm. business mi ngi ciy dox ñu ngi mm. ciy jaay seen marchandise mais am na ci ñoo xam ne moom la ñu ciy yàqule moo ëpp foofu lañ ciy gagné. mais la tey boo nekkee si jamono boo xamante ni nag sa xarit moom ngay def li nga xamante ne ni mooy lépp. xarit bi nga am nekk si réseaux sociaux yow. say waajur moom dañ laa tere lépp loo xamante ne nii jëm na si wàllam internet sa xarit boobu noonu foo fa mu comme ça tey fu ma toll rek naan warxa warxa warxa di wax si moom. yoo mhm. xamante ne nii te moom li may wax waajuram nangul ma jëmale ko kaw. te les de warxa yi rus naa ñëw si tafaa naan ko sama tur bi di bëggatuma nga koy tudd fii wala bëggatuma nga koy tudd fee. Mhm. moom mën na koo jàppee ne nan fekk ne li nga xamante ne ni moom la ko wax ay waajuram ñoo nanguwul loolu. Mhm. mooy li ñuy wax toujours naan waxtaan na doon li nga xamante ne nii day neex borom kër gi. mais sunu jamono jii ñu toll nii waxtaan na neex borom kër. ak borom kër yi nga xamante ne ni tal nañ seen waxtaanu doom ndaxte borom kër bi nga xamante ni dafa yeewu fajar tale dépasse ak la nga xamante ni moom la joxe ki nga xamante ni bu joxee reer di dawlum joxe reer joxe reer di wuti la nga xamante ni moom lay joxee ndékki lu am jot bi nga xamante ni dina contrôler doomam ba du dem si yan yi moo tax ñi nga xamante ne ni ñooy xale yi ñoo war a jël seen responsabilité bopp xamante ne xale moo war a dooni magu ëllëg xale bi nga xamante ne mooy doon magu ëllëg nag dugg si li nga xamante ne nii moo koy lor nit ki nag lépp li nga xamante ne mu ngi siy dugg di si dugg plaisir boppam comme li ma waxoon si départ bi rek moom laay waxaat ba léegi lépp li nga xam ne yaa ngi siy dugg jiital si sa amour sa plaisir bopp te demoo si sa xel sa conscience tranquille boo demee ba si digg bi toujours di nga am ay dund yoo xamante ne nii yow yaa ko teg sa bopp hmm. mooy lépp fépp foo man di nekk nag nga xam nga nekk si internet net wala nekkoo si ba si liggéey bi nga xamante ni yow yaa ko tànn la sa bopp pour liggéey bi jëloo si benn risque jëloo si lenn loo xamante ni moo la mën a jàllale lu dul liggéey bi may liggéey de man maa ngi si am tur wala man maa ngi si am amour boo xamante ni moom laay dund mën ngaa dem ba si biir am si ay jafe-jafe lay jafe-jafe yooyu nga xamante ni moom nga si am nag mooy ñi nga xamante ni ñoo nekkoon si ay TikTok wala Facebook yooyu noonu ñu leen di suivre avant ñi nga xamante ni ñoo ngi tëdd kaso ñëpp mhm. danoo def loo xamante ne ni erreur la wala ñu wax ak nit ku ñu war ta wax ndaxte gis nañ si koo xamante ni dañ koo fayoon xaalis muy saaga ay kilifa mhm. te dëkk si biir Sénégal li ma waxoon si départ bi ne saaga moom jigul koo xamante ni yaa ngi si biir réew mi ndaxte biir réew mi ñu nekk nag ñeg nañ ko ñeg goo xamante ne nii boo fi tooñee ma sàmb balaa ngoon a jot ma sàmb ma demba dina la lijjanti ba xam fi nga nekk ñu teg la si lijjantiwukaa bi ñu lijjanti la la mhm. loolu noonu nga xamante ne nii mu ngi xew si suñu dëkk bi war nañ see joxoñ baaraamu tuuma suñu état wala. Mm-hmm. exactement war nañ cee joxoñ baaraamu tuuma suñu état loolu état bi à chaque fois mi ngi génn di di di wax que ni réseaux sociaux yi dañ ko war a euh, régulariser. Mm-hmm, mm-hmm. mais problème bu mooy est-ce que loo xam ne tamit moomoo ko. defaroo ko see doomu réew defaruñu ko est-ce que loolu mën nga koo tëb tëb ne da nga koy régulariser. te boo xoolee état bi lu ci bëri tamit ñoom tamit joué nañu ci ndax ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw ñoo poussé ñoo poussé société bi. Mm-hmm. ñuy saagante ci seen mm-hmm. biir waaw ah, lu leer. ndax tey jii boobu bu ñu tuddee saagante ci réseaux sociaux yi rek eh, xëy na ay benn benn nga ciy gis ñoo xam ne dañuy régler seeni compte personnel mais boo xoolee lu ci ëpp ci diggante politiciens yi la moo xam ni ne ci nguur gi wala ñu nekk fii am na ci sax ñenn ñoo xam ne eh, da ngay dégg ñu naan dañuy fay ay nit eh, ñuy pour ñuy créer ay faux compte mm. pour ñuy créer ay faux compte nga xam ne yow mi yow Euh, par exemple yow Moustapha nga nekk benn politicien nga fay ndumbe mu créé benn faux compte mhm. loo dugal mhm. ndumbe ak ay moroomam ñeneen dañuy gaaw ñu di di di apprécier léegi bu bu benn wax xaa jógee fa la nekk sa sa ennemi mhm. euh, comme ni ma ko mën a waxee ci politique euh, dugal benn da ngay gis ñoom tamit ñu def benn vague ñëw di commenté di daggalante ay saaga donc état pour mu régulariser ko loolu tamit dana nekk benn problème ndax dañ koy fayantoo rek. mais ak jamono ji ñu toll nii nga xamante ne nii internet mooy première arme Sénégal. Mhm. fi mu toll nii internet la ñëpp jël li nga xamante ne nii mooy seen cible ñu jëm si. ak fii réew mi toll nii nga xamante ne nii saa yu xëyee suba ba ngoon jot dina dégg li nga xamante ne nii mooy manifestation mhm. yaa ngi am. Mhm. te bu amee li nga xamante ne nii ay yàq-yàq rek lay jur. yàqu yàq yooyu mu jur am na yoo xamante ne nii war nañ koo war na mën si wane si internet am yoo xamante ne nii kenn waru koo wane. mais li ko saam si loo xamante ni dañ koy jaay te nekkul loo xamante ni loolu la. Mm-hmm. xam nga internet euh, dafa nekk mbedd. Mm. mbedd la mbedd moom tey jii boo génnee di nga daje ak benn ndumbe bu ñu bu yiw di nga daje ak benn warxaa bu mel nu fa neex. Mm. noonu la noon la demee ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi ñi nga xam ne dañ daan toog ci seen kër. bëgg a wu du ñu am fu ñu ko waxee. ci mm. réseau sociaux yi la ñuy toog. di nga gis koo xam ne dina xëy këram. tëdd këram suba ba ngoon génnul génnul sax néegam hmm. génnul sax néegam comme sama genre gi bu ma liggéeyul mën naa xëy suba ba ngoon du ma génn néegam fekk wër naa àdduna ba <laughs> ak sama téléphone sa voix di dem fii pare ngay gis ñëpp <laughs> jeex na wër nga wër nga àdduna ba pare kon ce qui veut dire que réseaux sociaux yi mbedd la mbedd boo xam ne ñëpp ñoo fay daje donc ki nga xam ne moom mooy toog di connecté wu di dugg ci réseaux sociaux yi di xool moom moo war a xam fan la yem la war a yem hmm. mais nag euh, mënu pour ne kii mooy dugg kii du dugg moom loolu moom mënul nekk. parce que benn la nekk mënul nekk moo tax. daanaka si sa live daal nga ko mën a sécuriser boo xam ne daa am lu war a jàll ak lu warul mm-hmm. loo xam ne tey jii boo ñëwee bëgg a wax lii eh, ki jiite programme bi ne la nangam warul jàll ndax du waxu rajo. Mm-hmm. chaque jour nga dégg ñun ñu ne nangam du waxu rajo wala nangam du waxu tele mais nangam du waxu réseaux sociaux moom doo ko mës dégg. Mm-hmm. ndax réseaux sociaux moom benn la ñëpp fay daje. waaw ginnaaw bi nga xamante ne ne waxtaan nañ si yi nga xamante ne ni dafa négatif si wàllam internet am na loo xamante ni tamit positif na lu si mm. bari te boo ko doon wax fii ba suba mën nga fee fanaan ndaxte am na ñoo xamante ne nii ñu ne dañuy jaay seen bopp wala nekkul ne dañuy siiwal seen bopp wala dañuy wutur mais dañuy benn Moustapha Bassirou Gningue wala keneen et cetera et cetera. Mhm. ñëw jox la benn aaya ne la aaya bi sàngam ak sàngam boo ko defee di nga si am nangam ak nangam te néew la jox ma xaalis wala néew la xaar ma fi wala fee. Mhm. nga def loolu noonu ah, gis na lii nga def nii positif na bokkut ak ki nga xamante ni dafa nekk si beneen ñàll wi. Mhm. loolu tamit dafay am ci réseaux sociaux yi am na ci yoo xamante ne nii. Euh, mën nañ ko jàppee loo xam ne positif na te nit yi ñu ngi ko ciy jariñoo mm. euh, comme ni ma waxoon sànq rek yow mi nga xam ne yow yaa ciy dem yow yaay nite xam li nga ci soxla mm. nga def ko ci gis nañ fi nit démarré fi benn business bu ndaw boo xamante ne ni euh, ci internet rek la commencé woon commencé di poster ay statut nga gis muy dem ba am benn ampleur bi muy dem ko nit ñi nit ñi xam ko mm-hmm. waaw foo foo ko woon chaque mm-hmm. jour ñu chaque gis ko fi mën nañ ci joxe ay exemple mm-hmm. xanaa dañuy bañ a bañ a bañ a mais gis nañ fi à chaque fois nit yi di ko di ko ci utiliser euh, leneen tamit am na ci muy ñi nga xam ne euh, par exemple dañoo toll ci jàng internet bu lépp loo bëgg a jàng loo bëgg a xam fi mu toll nii dem di fayi professeur sax dem di fayi professeur bu lay buy toog di la jàngal ay cours particulier ay kii sax léegi ku neex nga bañ koo def mhm. mën a la bind mën a liir boo demee ci YouTube ba loo bëgg di nga ko fa fekk boo demee Google loo bëgg a jàng di ko di nga ko di nga ko fa fekk boo demee ci YouTube bi am na fa ay plateforme yoo xam ne boo fa duggee formation boo bëgg a suivre mën nga ko suivre ba jot sa attestation jot nga fay ñu jox la sa attestation te loolu euh, yëpp ci internet bi dañ koy mhm. lañ koy gisee loolu mhm. yëpp ci réseaux sociaux yi dañ koy gisee kon réseaux sociaux yi am na ci loo xam ne négatif na am na ci loo xam ne positif na ça dépend ci ki nga xam ne moom moo koy utiliser mhm. gis nga comme li ma waxoon sànq mbedd la rek waaye boo génnee ci mbedd mi tey ji lu lay intéressé moom ngay toog boo génnoon ci mbedd mi tey bu dee lu baax ngay wër di nga gis lu baax nga topp ko mm-hmm. bu dee lu bon ngay wër tamit di nga gis lu bon yow yaa xool la la yitteelul nga tegg ko la la yitteel nga nga nga jël ko dem ak moom mais boo ci duggee bu fekkee lu positif rek moom wax fa dëgg yàlla am na ci lu bëri loo xamante ne ni mën na laa jariñ ci internet bi muy côté business. muy mm-hmm. côté mm-hmm. jàng ak leneen ak leneen lu mu mënti doon. Mm-hmm. mën nga ko cee mën nga ko cee amee chaque jour ñu ngi ci internet bi digg su sama classe bi moom. <laughs> ku nekk sax jàpp na ne li nga xamante ne ni moom la bëgg <laughs> moo ëpp si internet. Uh-huh. ñi nga xamante ne ni dara ñoru leen lu dul turu yàlla yooyu noonu daanaka noonu la fa baree. du xaaj du jeex ñi nga xamante ne koy jàngale du fa xaaj du jeex. ñi nga xamante tamit dañuy jaar sa weneen safaan ba mhm. ni samedi ak dimanche amee li naan àdduna moom am na ñoo xam ne ci seen diine ci internet bi lañ ko waaw si lañ ko jàngee am na ñoo xamante ne bi ñuy dugg si internet xamuñu woon dara lu dugg rek di xool li leen intéressé di mhm. koy suivre mais dem nañ mhm. ba nga xamante ne xam xam nañ si loo xamante ne kawe na seen njort foogoon nañ ne duñ ko mos a xam yaa naan man lii laa bëgg fii laa jëm saay bu ma connect saay bu ma taalee sama connexion bala maa génn li ma bëgg danaa dem ma ci même bu fekkante ne ne benn affaire bu ndaw laa ciy xam chaque jour yàggee loolu noonu di nga te di nga ci développé. mais la si ki bëgg boole lépp nag xam ko am na ñoo xamante ne nii réglé wuñ de <laughs> bu bu bu xasee ba yor seen téléphone ñoom da nga gis ñoo xam ne dañuy jël seen téléphone di aj ba téléphone bi daanu seen kaw ñuy nelaw. ñuy nelaw ba affaire bi di daan mooy ñàkk xam loo bëgg nag <laughs> xam nga ah. mbir boo ciy dugg tamit dangaa war a xam li nga bëgg ba pare boo xamee li nga bëgg si ngay soog a dem mais bu fekkee da ngay dox rek di talax talaxe looroom faxas sa loxo moom maanaam daal xam li nga bëgg jëli ko jëli ko daal mooy affaire bi xam li nga bëgg jëli ko loolu la loo loo bëgg di nga ko fa fekk waaw jàng wala nga bëggee liggéey hmm. di nga ko fa fekk hmm. liggéey sax liggéey en ligne sax am na ci internet bi di liggéey ñu lay fay entreprise en ligne. Mm-hmm. ngay liggéey ñu lay fay am na entreprise yoo xam ne mën nga faa dem jënd fa nekk fa sax actionnaire jënd fa benn part nekk fa actionnaire dafayee ko sa xaalis chaque jour ngay gis koo xam ne mi ngi am nga jàpp ne day dafay jaay loo def dafay jaay dorog wala di wala kii fu muy jëlee xaalisam bi di muy liggéey am ko fekk moom mi ngi liggéey ci internet bi di liggéey liggéey bu lew te yoo xamanoo ko dara leer mhm. mooy li ñu ne mën ngaa bañ am métier toujours ngay tëdd si sa kaw laal tey gagné sa xaalis mhm. mais loolu lépp nag li la koy may da ngay jiital ak jub te jiital li nga xamante ne nii mooy sa xel bañ a sa intérêt personnel rek te nga xam li nga bëgg mm. comme li nga ko waxee waaw ba tey képp koo xamante ne nii bëgg ngaa dabe si émission bi mën nga def 88 628 19 05 ñu ànd waxtaane ko tey fii la moo tax ñu indi leen thème bi nga xamante ni dañuy waxtaan si lépp li nga xamante ne nii mooy internet nekkul ne dañuy wax li nga xam ne moo positif bàyyi li négatif dañuy boole ñaar yëpp ñu waxtaan si mm-hmm. ndaxte booy waxtaan si borom kër wala ngay waxtaan si kër war nga mën a xam loola bu baax a baax a baax donte maîtriser wuñ lépp waaye toog nañ ñoo xamante ne nii maîtriser nañ si lu bari àdduna nag kenn mënta jeexal lépp ndax àdduna xam-xam la da ngay xam li nga xam keneen ki xam li mu xam xam-xam mënoo koo jeexal bu mënoon jeex waaw dina am ñoo xam ne jeexal nañ ko mm-hmm. mais c'est ki nga xamante ne ni xamul dara si internet mm-hmm. ah pare nag di di dugg di bind wala boom bu mënta bind di def ay mike kooku moom lan moo ko si war <laughs> moom xamul dara. noonu la xam nga mbir balaa nga ci balaa nga ciy dugg nga xam ko boobu. Mm. nga xam lii. Euh, lan la lii fan la jógee mais da ngay gis koo xam ne dafay dugg internet moom la koy yitteel mooy seetaan série la koy yitteel mooy seetaan mike la koy yitteel mooy seetaan ay film loolu yëpp baax na mais am na ci loo xamante ne nii dafa war a am temps mm-hmm. seetaan série ak ay seetaan ay mike ay yooyu noonu xëy na am na ci yoo xam ne boo ko seetaanee dina am lu mu la jàngal ci sa àdduna mais la mu la yàqal ci sa àdduna moo ëpp mm-hmm. euh, chaque chaque jour nga gis fa ay cambriolage yooyu yëpp daanaka ci série lañ koy jàngi mm-hmm, mm-hmm. façon yi ñuy defee ay cambriolage ak mm-hmm. ay affaire mbaraan ak yooyu yëpp boo xoolee ci série yi ci la ñuy jàngee technique yooyu kon série yooyu noonu ngay seetaan dafa war a nekk loo xamante ne ni passe temps la war a nekk ci yoo même TikTok bi man damaa jàpp ne TikTok passe temps la rek tey ji boo boo liggéeyee ba sonn wala nga nekk ci benn activité ba sonn nga dugg def ci benn benn laps de temps après nga génnaat dem nekkaat ci leneen mais topp réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi série bu jeex. nga seetaan beneen am na ñoo xam ne moom benn série. lu leer <laughs> mais ak euh, si côté série yooyu sax noonu dañ si waxtaan ba tey ndaxte mhm. boo xoolee léegi euh, daanaka bis bu set. da ngay bu dee yow da ngaa taamu di seetaan ay série bis bu set day am bu loo xamante ni day ñëw bu bees. Mhm. nga seen tur doon tur boo xamante ne nii. tey garaaw loolu. Mhm. ay tasal ma takk la ay jirim ay affaire yooyu noonu yoo xamante ne nii <laughs> yow da nga daan toog di xalaat ne lii du ko mos a imaginer li si day loolu noonu nga koy seetaan ak ni nga xamante ne nii moom nga ko war a dundee am na ñoo xam ne lépp luñ seetaan rek day des ci seen bopp. toujours lépp seetaan loolu loolu la ñuy gis te loolu yëpp euh, réseaux sociaux yi la rek parce que mhm. même ba ci série yi sax série yi ni mhm. impact réseaux sociaux yi sax dafay joué ci seen scénario yi fi nga koy xamee mooy bu njëkkaan théâtre yi nga xam ne moom lañ daan seetaan mhm. da ngay gis ne théâtre yi dafa daan am njariñ ndax lan booba réseaux sociaux yi melagul woon nii kon ñi nga xam ne dañ daan joué théâtre dañ ko daan def par amour dañ ko daan bëgg mais duñ daawuñu ko bëgg ndax siiw mais da ngay gis euh, léegi kenn benn Nogay Seck boo xamante ni moom li ko yitteel mooy siw mm-hmm. nañ ko gis Instagram mu bind ci Nogay Seck sekk daal. Mm-hmm. xam nga loolu la loolu la ñuy def duñ bind sax seen tur nangam diw série nangam. diw mm-hmm. série nangam. léegi loolu noonu moom moo lay topp ba tey jii ne nga génn ñaari yoon ci série acteur ngay nekk doo sax nekk comédien nga génn ñaari yoon ci série. doon acteur doon doon. benn star ca star ca koñ ba nga dëkk waaw kay nekk benn star ca koñ ba léegi yow da ngay dem a dem ba da ngay xeeb si reeru waa kër mbaxalu saalum bi ñuy reere da ngay dem ba dootoo reeree seen kër ñu toog tuuti nga dem jëlee appartement amoo loo fay appartement ku nekk xam ne ni série moom dañ ciy nekk rek waaye du xaalis am na ci yenn xaalis yoo xam ne moom daf lay leen kii gagné ko ci série bi mm-hmm. ñëw nga génn dem uti appartement moom moo lay poussé ba ngay def yeneen ak yeneen loolu yëpp impact série impact boobu yëpp réseaux sociaux yi moom moo koy def ci ñi nga xam ne ñoom ñooy joué ji ay série ndax amaana boo ko defee tey réseaux sociaux yi partagé la ñu gis la nga nga nekk benn soi-disant star mm-hmm, mm-hmm. nekk ñu lay séen foo xamante ne ni leer na ne du dund bii du dund mm-hmm, boobu wala ñu joué loo ci benn série du benn dund bu neex nga génn bëgg a continuer dund ba nga doon dund ca série ba yow nga bëgg a dund dund waaw moo tax am na benn artiste boo xam dama koy déglu ab rapport la mu naan tekkil sa verre rose nga gis la vraie vie maanaam nga gis li nga xamante nii moom nga war a gis tey jii nga dem si benn piscine nga photo fa def lu la neex. Uh-huh. pare envoyé ko seen waa village fekk ne yaa ngi leen di nax fekk ne ki sàq mi te seexul dara boppam lay nax te bu màttee làmmiñam mën na saa jële gaañu. dañuy wéy si côté série ba léegi am na yoo xamante ne nii seeni tur rek. boo koy seetaan man léeg-léeg bu may seetaan dama koy faral di seetaan lu bëri mais bu may seetaan série bi nga xam moom laay seetaan mhm. pour ma bañ a réer toujours damay sukkandiku si ni nga xamante ni moom lañ tudde série bi comme exemple bu ma doon seetaan série amoon na série boo xam ne muñal la tudd bu ma koy seetaan léeg ma gis lu triste loo xamante ni damaa metti mais damay xool ñu bind si suuf muñal loolu rek da lay pour nga muñ te mhm. am na ñoo xamante ne nag bu ñuy def série dun si bàyyi loolu xel mhm. dañuy ñëw rek def ko mu jàll jël titre bi ñu tuddee ko nu leen neex mhm. te loolu nag ki koy seetaan yaa ngi bàyyi si moom loo xamante ne nii ndaxte sénégalais moo doon koo xamante ne nii dafa bëgg roy te day roy ba dàq yow li si yaa ngi roy loo xamante ne nii ki ngay roy moom ba mu ko defee ba pare booba la sa pare yow nga ñëw toppaat ko di ko roy di ko roy ba ko sa loolu noonu te loolu baaxul mën na laa indil ay fee yu bëri yoo xamante ne nii doo comprendre sax. Mhm. waaw ba tey ñoo ngi si émission bi di waxtaanee émission tey fii la ñuy waxtaan si internet yéen ñi nga xamante ne nii bëgg ngeen a tàbbi si émission bi ñu waxtaanee ko mën nga jaar si 88 628 19 05 88 528. 628 19 05 képp ku ñëw rek di nga ànd ak ñun si sunu waxtaan bi tey ñu ngi jëmale sunu waxtaan bi si wàllum internet ndaxte internet li nga xamante ne nii moom lay yàq bëri na lool waaye li muy defar tamit bëri na lool beneen côté boo xam ne sax dinañ si waxtaan ndax internet donte li muy yàq bëri na li muy defar bëri na mais am na ñoo xamante ni bu nekkee si stress nag moo leen si mën a génne. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, daanaka internet moom moo leen ci ci moo leen ci génne. Hmm. Euh, surtout ñi nga xam ne dañuy liggéey par exemple ci wàllum commerce. Hmm. ñooñ moom internet bi dafay jouer lu baree bari ci seen i ci seen i mbir. Hmm. ndax bu njëkkoon boo doon boo doon jaay amaana tey jii yow amoo som boo xam ne mën nga koo dem yóbbu ko ci rajo. wala yóbbu ko ci télé ñu publicité la euh, léegi da ngay def recours sa compte Instagram wala sa sa wala say statut. nga ciblé ñi nga xam ne amaana bëgg nañ lool noonu li nga xam ne moom ngay ñoo ñooñu internet mi ngi leen ci génne bu baax a baax a baax hmm. am na ci ñoo xam ne tamit par exemple artistes yi hmm. aussi seen seen page Facebook yi ñu ngi ciy profito di wane seen bopp moo xam artiste woykat la wala comédien waaw wala wala wala comédien wala nga ne pentre wala lu mu mën di doon mm. parce que gis nañ fi ay artistes pentre yu bëri yoo xam ne mm-hmm. tamit mën nañu réseaux sociaux yi moom moo leen moo leen lancé mm-hmm. rawatina Instagram bi nga xam ne ñu bëri ci la ñuy dem di publier seen i seen i affaires yoo xam ne mm-hmm. moom la ñuy moom la ñuy def donc internet bi am na ci ñoo xamante ne ni moom génn na leen ci donte am na ñoo xam ne suuxal na leen ndax am na ñoo xam ne la ñu nekkoon di ca dox muy baax ba ñu duggee ci internet bi internet bi gëlëmal na leen ba ñu dugg ci naka sudul noonu Euh, ca la ñu jaaree ñoom daal di rek seen mbir daal di suuf kon dañuy jël ki ci ligne bi 88 628 19 05 allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. wax na suñu lay ziar. ñu ngi lay doon la ziar. ah am na solo lool de. jërëjëf. Mhm. Eh, ñu ndax mel na ne daal. Mhm. moom ñor na leen. Mm-hmm. nga xam ne kenn du ko jeex. jëriñ mm-hmm. bi nag wax dëgg yàlla macha allah wax ji tey na ko ci xam-xam. wante nag eh, dama lay xamal ne. kaamil ah. alxuraan bi nga xamante ne dañ koo teg. Mm. may na ca yàq àdduna yàq ci ñoom àdduna. Mm. te ba ko suñ borom di bind njëriñ doo nga tax. lor kenn taxut. wan na yoon li nga xamante ne ku ci aw loru ngir nga moytu ko wan la li nga xamante ne mooy jëriñ ëllëg. Mhm. ba nga mën caa gaaw. wala li nga xamante ne boo tàmbali woon a yàqu boo ci awee rectifier sa bopp. Mhm. loola doo nga ne ci alxuraan. Mhm. internet bi it boobu rek. am na ñooñu ci lañ jàngee ba wattu alxuraan. am na ñooñu ci lañ amee am na ñooñu ci lañ defaroo. naka noonu tam kenn ku nekk daal. Mhm. produit la boo boo jël produit boo yóbbu ci marché la rek. Mhm. di jaay yaa xam la ngay jaay. Mhm. da ngay nax nit ñi wala naxoo nit ñëw da nax sa bopp wala naxoo sa bopp. noonu rek la demee. mbir la moom daal yombal na. kenn ku ne dalaa yombalal na mel. yow nag nan la yare ak ka nga doon ak la nga doon. Mm-hmm. ah boo dikkee moom ngay indi ci marché bi. Mm-hmm. ndax marché bi da gis yoo xam ne bu ñu andee dañuy saam seen i sump ñee saam seen i déem ndax déem ñor seen dëkk. Mm-hmm. ñee seen dëkk ay xeer a fa am ñu andi ko ñu bëgg a tabax jënd ko marché la daal. waaw ah, ngir ma tënk ko. léegi nag ki nga xamante ne mooy ndey ak kii baay. ñooy seet seenu njaboot. ñu indi yare. dañu am comportement. Mm-hmm. waaw bu bu fe nga xam ngeen fii mu nekk ci sama gis-gis ak sama xam-xam li may doon doon mag. Mm-hmm. maanaam ki dàq saaga. Mm-hmm. ki njëkk a saaga ay kilifa. dàq saaga. man maa ngi ko xamee ci Souleymane Sy yëpp. ci moom laa ko njëkk a xamee. mu nekk nii ci donc ak yu ànd ak ànd ak président. kon léegi xale yi di jàng lu ñuy programme ci seen xel. ku ñu màggee ku mën a daggal daggal la ku mën a saaga saaga la ngir ñu am xaalis ndax xaalis la ñuy xool. boo ànd ak président am xaalis. lu waay def boppam. jërëjëf Baye Cheikh Gaïndé Diagne bëgg Fallou ñoo ko bëgg. wax ji am na solo lool wax dëgg fi yàlla. Mhm. dañuy wéral li nga xamante ne ni moom la wax rek ne arxuraan moom mhm. wax na li nga xamante ne ni mooy lépp. te boo xoolee Serigne Touba rek bind na ko si téere boobu nga xam ne mooy tasoori si xaar di yóbbal ak ndaw ñi mhm. mu naan wamanta daa rek la si xat faata mi ne la xaa ki nga xamante ne nii li nga xam ne dalaa da nga koo passé lépp mhm. doon na loo xamante ne nii neexu la te nga bëgg defar li sa kanam pour mu neex la mhm. dasaateeg baat yu am solo dane bi taw bati an na sonxo wa xibaar ilalaay faasa bil kamaali da dangay tuub lépp li nga xamante ne nii wees woon nga ko te li nga xamante ni moom nga jëm si sa kanam nga fexe rafetal loolu ko kon papa wax ji nga xamante ne wax nga ko am na solo kontaan nañ si loolu <laughs> di kontaan si dugg bi nga dugg di la ñaanal tawféex ak taysiir mm-hmm. Modou Bale tamit moo ngi ñuy bàyyi xel fa fa sa daaru Karim màggal ak ma sàmm mbàkke tey danoo jaay émission bi bàyyi ñu fi <laughs> waaw tey danoo bàyyi fii nii <laughs> bàyyi ñu ak seen ab thème pare dem bàyyi ñu fi ñu ngi leen di kontaanee di leen féliciter daan nañ fi def liggéey bu rafet wax dëgg fa ah. yàlla tey ñu nekkal leen fii lu si mm-hmm. góorgóorlu lu si jubit ñu xamante ne nii Euh, noonu la baaxee mais lu si dëng it matadik doomu aadama la. Mm-hmm. waaw ba tey ñu gën a xuus si waxtaan wi rek continuer ba tey képp koo xamante ni bëgg ngaa tàbbi si émission bi nga def 88 628 19 05 boo ñëwee rek soxna Valka dina la yóbbaale ñu waxtaanee ko ba tey soxna si. Mm-hmm. man am na loo xamante ne nii damaa touché loolu si si internet bi ndax damaa gis keroog benn nit boo xamante ne nii handicapé la. mais nee na moom li nga xamante ne nii jàng na ko lépp si internet la ko jànge mhm. te si euh, pousse pousse si lay tëdd ba bi muy ñëw di def émission dañ ko buus ñu indi ko euh, cër yi na ma yàlla jéggal si kàddu bi cër yi matul. Mhm. mais li nga xamante ne nii day day day def day def rapport. Mhm. mais jàngul si école jàngul dara lépp si internet la ko toppee. te bi nga xamante ni toog na si palaato di wax ñi mu doon defal plateau bi ñëpp dañoo mujj di tuur xéewal Mm-hmm. leer na mooy comme li comme li Baye Cheikh wax mm-hmm. sànq rek. Mm-hmm. Euh, que ni am na ci ñoo xam ne jàng nañ ci seen diine. ñi ci bëgg a jàng seen diine ñu ngi ciy jàng seen diine am na ci ñoo xamante ne nii jàng nañ ci sax métier. métier sax nit ñi ñu ngi koy jàng léegi ci internet. am na ñu bëri ñoo xam ne métier ba ñuy def demuñu toog ci baaw école di ko fa jàng. dem ci atelier di ko jàng mais fañ toog lañ toog di utiliser seen connexion internet euh, di surfer di xool. Euh, site yi di xool euh, euh, nu mu tuddati di xool di xool site yi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci yëngu ci domaine kay di xool euh, page yi nga xam ne ñoom ñooy def ci lool ak plateforme yi mhm. di dugg fenn fu nekk di di gëstu te lool mooy li nga xamante ne ni moom moo ko taxoon a jóg dëgg-dëgg mhm. li tax ñu naan Google loo ko laaj mu jox la ko mooy loolu nit ki tey li nga xam ne soxla nga ko tey jii nii par exemple malaaj laaj la ko nga xamoo ko sa xam-xam yéegu fa ma laaj ko lu ma xam yéegu fa damay dem Google ma wëri ko fa. Mhm. Mhm. su ma demee dinaa fa am solution boobu noonu internet dëgg-dëgg loolu moo ko taxoon a jóg muy xeetali nit ñi mais ñun problème bi. Mhm. mooy lu ñëw dañu ciy ëppal. lu ñëw duñu gëstu ba xam. lan naka lañ ci war a demee duñu gëstu ba xam lii nii lan moo ko tax a jóg ñu nekk ci loolu wala ñu jéem a développé wu ci loolu mais lu ñëw rek ñun dañ ciy demee ak tendance dañ ciy demee ak daa xew rawatina nag nekk influenceur rek nekk <laughs> tiktokeur. koo suivre daal nga bëgg a doon comme kooku naan tiktokeur sax man damay damay damay ah, damay waaw mooy maa ngi lu leer moo tax <laughs> maa ngi dégg benn kilifa mu wax lu am solo comme Google loo ko laaj rek mu jox la ko. mu ne ah. kii tuddul Google guuxal la tudd. <laughs> ne am na xam-xam yoo xamante ne nii kenn mënu koo guux ba jeexal ko. <laughs> yii da koy mos yii ñu mosal la ko yii moom danga koy romb rek jàll. Ah. kon Google am na solo solo goo xamante ne nii. Mm-hmm. Uh, mën na laa jàng lépp lu nekk si àdduna. Mm-hmm. aussi mën na laa xamal lépp lu nekk mm-hmm. si àdduna waaw si lu lay jariñ wala lu lay yàqal ndaxte affaire bi moom sa gerte la rek yaa xam da koy boo xam door a lekk wala nga lekk ko mm-hmm. noonu yaa xool bi nga xamante ne nii moo la arrangé waaw si noonu la ñuy wéyalee ba tey si biir waxtaan bi mm-hmm. ndaxte boo xoolee eh, bu bàyyee yooyu yëpp dañuy ñëw si bi nga xamante ne nii mooy whatsapp mm-hmm. ndaxte kenn demul mu des li na àdduna biir ak biti kenn demul bàyyi ñu fi moom it mujjul ginnaaw <laughs> waaw waaw la si tey loolu loolu loolu si si si weeru koor bi nga nekk si benn groupe di topp kaa di topp kaa bañ mujj yow di la topp loolu noo ko gisee <laughs> réseaux sociaux yi euh, bu ñu waxee whatsapp bi euh, ci la bokk whatsapp bi bëri na kër yu mu tas. moom jëlul première tendance suñu tool yi sax. yow da ngay dugg ci biir benn kër sax biir kër gi ci boppam. mu tas dafa am xam ne dafay am ay ñett ñoo xam ne ñoom ñooy créé fii seen groupe whatsapp. di ko waxtaane di ci kaañ yi. Euh, par exemple man ak. ma man ak yow ñuy waxtaan si man ak yow ñu am suñ groupe whatsapp boo xam ne dañ ciy dugal Modou Bale dugal ci bu ndaw ñun bu ñu xëyee lëz waxu jàkkee la ñuy kaas ba ngoon mm-hmm. ñoom tamit ñoom ñu am seen groupe whatsapp boo xam ne ñoom bu ñu xëyee ci ñun la ñuy kaas suba ba ngoon loolu noonu mooy dem ba te eh, ba ci biir groupe whatsapp yi dafay am ñoo xam ne dañuy bokk ci groupe whatsapp yi mais ay nettalikat la ñuy doon comme sama genre gi nga xam ne dañuy nekk ci groupe whatsapp bi ñoom audio bu wàcc rek mm-hmm. transféré nañ ne déggal diw mu wax diw lu ma wax ci groupe whatsapp ba da ah chaque jour da koy gis ci groupe whatsapp bu mm-hmm. politicien yi da ngay gis benn panel boo xamante ne nii waa APR ñoo ci bokk mm-hmm. léegi panel bi waa APR bokk waa APR bu ñuy xuloo lan moo ko war a wax waa Pastef lan moo ko war a wax. waa gëm sa bopp waa gëm sa bopp lan moo ko war a wax. waa serviteur ba waa serviteur war a mën a jot ci waxtaan boo xam ne ci panelu APR lañ ko doon waxtaanee. jamonoy élection yi chaque jour nga dégg audio fuité audio fuité loolu yëpp li ko waral mooy whatsapp bi. Mm-hmm. dangay ngay wóolu nit wax ak moom audio whatsapp léegi nit ñi sax bàyyi nañ de waxtaan waxtaanante ci audio whatsapp mais terewul ba léegi ñi ci traité ay cas ñi ngi ci traité seen i cas ñi ciy gaaruwaale ñi ngi ciy gaaruwaale wayu ay décembre bi génn gis nga kër yi nga xam ne tas na bi mm-hmm. sama genre gi sëyuñu bougé wuñ amuñu sax far bu dëgër ba pare bëgg a nekk ci kër gi mm-hmm. di xool eh, jeeg bu ñuy estaté ak jeeg bu ñuy estaté te yow loolu am na am na solo am na solo lool li naan saako pompiteer bi benn pompiteer bu nëb bi mën naa yàq pompiteer yëpp waaw mais li li si day nga gis koo xamante ne nii eh, wasabam moom nekkul di si def loo xamante ne nii mën na ko jëmale fenn li may wax toujours ki nga xamante ni damaa bokk ak moom koñ ak ki ma bokkal moom kër. ak ki nga mhm. xamante ni chaque jour ñu gisante bis bu set mu may envoyé sawa bu ma ko toppee day jeexal sama connexion. <laughs> vraiment. da <laughs> ciy am solo ñi nga xamante ne nii. nit ñi da ngay xool fi nga war a waxtaane ak ñoom mm-hmm. man euh, mënumaa dëkk si toujours di waxtaan ak yow sa waa si loo nekk yaa ngi si jàmm man xam naa ne yaa ngi si mm-hmm. jàmm bu baax a baax a baax da ngay dem ba dootoo xamante ak loo wax ak moom bëri na ñenn nit ñu bëri ñoo xamante ne nii dañuy bàyyi ay message seen téléphone duñ ko tontu boo ko gisee nga naan yow lu tax doo tontu message ak loolu ki lay wax lu tax doo tontu sama message mosulaa wax message bu am solo mm-hmm. waaw la si dee nag nit mën naa dëkk si toujours di la nuyu te bu <laughs> nekk ci réseaux sociaux waaw waaw waaw waaw non loolu mënul nekk kon boo xoolee li nga xamante ni moom la TikTok di def si internet. Mm-hmm. Facebook di ko def YouTube di ko def WhatsApp mu ngi def lu raw loolu ndax WhatsApp dafa dëkk ak ñun. pare ñi nga xamante ne ni tey WhatsApp koo si def dara daanaka xam nga ko xam nga biiram xam nga biteem. yow xoolal damay ñëw laaj la sa numéro WhatsApp. Mm-hmm. doyewuma ko su ma la nammee nemmeeku la. Mm-hmm. doyewuma ko su ma la soxlaa dégg la. lu ma koy doyee mooy sa sa statut WhatsApp. Mhm. di xam yow li ngay dund. te ñu bëri comprendre comprendre ñu loolu dangaa war a xam xàmmee li nga xam ne moom nga war di dugal statut ak li nga xam ne sa vie privée la. Mhm. mais léegi nit yi li ñuy dund loolu la ñuy dugal. WhatsApp du ko ki nga xam ne moom bëgg na laa xamal moom day jël sa numéro rek jox la numéro am jàpp ñaamborom. Mhm. kooku loo dugg loo nekk suba ba ngoon da ko ci xam bu la bëggee yàq sax mën na laa yàq. moo tax li nga ëpp looy esthétique ku la gis di la woowe loolu. ku la gis loolu lay woowe <laughs> jeex am na solo kon nag mel na ne ni nga xamante ne ni moom la TikTok di def Facebook di ko def WhatsApp tamit moom sa wet ga te sax nee na mu ngi def lu ko raw mais man gëm naa loolu. Mm-hmm. ndaxte fi mu toll nii. nit mën naa bañ a intéressé wu si TikTok mën naa bañ a intéressé wu si Facebook ndax ñu mhm. bëri amuñu kenn du Facebook wax dëgg fa yàlla mhm. ñu bëri seen YouTube euh, dañuy dugg seetaan mënuñu commentaire ndax yooyu duñu leen mhm. ko may ndax ubbi woon waaw dañuy dugg rek pour seetaan mais WhatsApp moom képp koo xam ne mu sa téléphone yaa ko sa def boo mënul yaa ko sa deflu te ba nga xam ne deflu nga ko sa ba pare nag boo bindul yaa ngi vocal ku yéexul yaa ngi vocal sa vocal ba am. te te te léegi dañ ko yombal ba nga xamante ne ni am na nooy installé sa whatsapp mën ngaa dugg si tiktok sa sa sa statut nga def ko vocal wax ñëpp di ko dégg. Ah? léegi mën nga sa wax loo xamante ne nii <laughs> mën nga sa wax loo. man gis naa gis naa koo xam ne da doon envoyé nit nit vocal ju bës statut vocal ba pare supprimer ko xam nga whatsapp yi. boo supprimer léegi yàqu nga ko moom wax dëgg fa yàlla. mais sama ñoom benn sama benn xarit dafa euh, benn waaye dafa mos a di di di nekk si whatsapp di waxtaan benn groupe mosay waxtaan naka te lu muy waxtaanee si groupe bi rek am na koo xamante ne ni mu ngi génnee audio yi di ko jox warxa. mooy muy muy muy wax te li si wax lépp mu ngi koy wax si warxa lu mu wax rek mu génne ko jox ko warxa. warxa dajalee audio yëpp ba mu mat ay 100 ma tëdd ba guddi warxa envoyé ma yëpp. man bi moo ko envoyé nag <laughs> maa ngi naan ko yow loo may kaawati nii yi bëri na de ma déglu di déggaat sama bopp. <laughs> loolu loolu tamit dañoo war a xoolaat jikko yi baax a baax a nit ñi sax dañoo ragalante ndax loolu. mais loolu est-ce war nañ si egg. déedéet waruñu ci egg waaye loolu yëpp ci euh, léeg-léeg nag réseaux sociaux yi dina ci jouer. Mhm. waaye tamit ci éducation nit ki. Mhm. xam nga nettalikat moom wax fa dëgg yàlla boo ko ki nga xam ne day ñëw ci yow toog. déglu la nga nga wax wax wax wax ba pare. Mhm. mu dem di rapporter waat la nga wax. Mhm. ndegem kiy ñëw ci yow mooy def loolu kook xam nga ne bu amee audio bu moom transfert moo gën a yomb kon euh, ki nga xam ne à chaque fois mi ngi lay transféré ay audio jàmbur di la nettali. Mhm. kooku moom jàppal ne kii nii njikkoom nettalikat la mais du réseaux sociaux yi. am na ci ñoo xam ne nañ mel. réseau sociaux yi dañ dañ koy jiiñ réseaux sociaux yi mais seen jëmm bopp ñoom noonu lañ mel. Mhm. waaw ak ñi nga xamante ne ni seen i vidéo day rëcc ba tasaare dëkk bi yëpp. Mhm. yu si bari daanaka si whatsapp lay jaare ba génn. Mhm. si whatsapp lay ba génn moo xam nga ngay envoyé juum dugal statut wala ngay envoyé juum sax dugal ko ci groupe yi groupe yi nga dugg ci groupe yi ñu dugal ci ay vidéo wala ay sticker yoo xam ne. mais am na ñoo <laughs> xamante ne ni nag duñ juum dañuy wóolu nit envoyé ko ko. Ah. mu partagé seen vidéo gis si ñoo xamante nii ñu bëri. sans vidéo yooyu la surtout bi Snap di a xew Sénégal. <laughs> Mm. sans yu bëri vidéo yooyu noonu am na ay ndaanaan yoo xamante ne nii seen ay vidéo yuñ juum ba def ko. Mm-hmm. moo leen suul ba léegi nii. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñu ngi koy déglu nag. Euh, dund nañ loolu gis nañ li nga xamante ne nii moo dal ñii ba suul leen. Mm-hmm. mais ñoom ñoo ngi sa yoon ba ñoo ñu nekkoon ba tey. te jàpp nañ ne ñoom duñ si mos a daanu toujours te képp ki nga ah, xamante ne nii yaay yéeg yow yaay daanu ki nga xamante nii mooy sànni kooku mooy moyle. waaw kon <laughs> ku la si cëppeelu nar a fekk daal nga bañ a yéeg. ku ci yéeg de cëppeelu te dañoo toll foo xam ne am na ñoo xamante ni mënuñu ne man du ma yore whatsapp. Mhm. loolu moom mënul nekk ndax am na ñoo xamante ni wax dëgg fa yàlla seen whatsapp sax na dañu siy liggéey mhm. comme ni nga xam ne dañ koy liggéeyee si tiktok ah, di si jaay seen am jaay am na ñoo mhm. xamante ni noonu la ñuy def si seen whatsapp di si jaay seen ay jaay nit ki nga xamante ne si lay dàq suturaam yow waroo toujours di xool ay mu def ay feeyam pour nga tasaare ko. Mhm. loolu noonu baaxul nit ñi nan xoolaat fool seen jikko bu baax a baax. Mhm. yow nit kaa ngi def loo xamante ne nii si la bëgg dundale njabootam si la suturaam nekk nga fexe ba am numéro am pour mhm. yàqu ko. da seen li nga wax sànq rek nit laaj la sa mhm. numéro du ko doyee dara. billaahi wallaahi du ko doyee dara man na bañ pour pour wuyur sa statut sax man na jël sa numéro di si business wala mu jaay ko keneen <laughs> koo xamante ne nii da nga naan kooku yow foo jëlee sama numéro bi waa ah, ax ah, fi ma jëlee sama numéro kay jërul ma la koy wax dama ko lijjanti fekk na <laughs> mais am na ñoo xam ne nag man dama leen a mere dañ leen di dañuy am sa numéro di la wax wax yoo xamante ne nii guddi yu bëccëgul la maanaam wax yu demul fenn. nga ba <laughs> guddi yu bëccëgul mooy yaa ngi nekk si guddi te bët seetagul yaa ngi si lëndëm ba léegi wax ju leerul si yow. Hmm. mooy guddi yu bëccëgul xam nga de lëndëm waxu kasaw kasaw waxu kasaw nga bàyyi ko ngeen di gën di dem ba nga xamante ne ni si waxtaan boobu ngeen di waxtaan man ngeen a dem ba ba yow nga jàppe ko sa xarit la mhm. ki nga xamante ne mhm. ni ah ki nga xamante ne bi mu amee sa numéro da lay nëbb man la kan mhm. nga koy laaj fooy jële sama numéro mu lay nëbb fi mu ko jëlee léegi tey ngeen dem ba waxtaan ba ne da a doon ay xarit est-ce kooku yoon la pour nga def ko xarit si internet ndax ndax léeg-léeg nga gis koo xam ne day estati diw sama besti day am besti am confident am meilleur <laughs> yëpp mu boole ko. te man mën naa am ñoo xamante ni mosut a gisante ak ñoom. waaw yëpp yëpp yow nga boole ko yow léegi mën nga ne yow kii mooy sa confident ba pare kee nekk sa bestie. Mm-hmm. mais yow li ngay wax ak confident pour man. loolu nga war a wax ah, ah. man pour man sa confident ki euh, bu waroo mën a am beneen bestie bu dul sa confident. Mm-hmm. léegi nag loolu moo am ci ci ci ci contact yi loolu ngay bind ay beew ak ay ay bestie mm-hmm. ay yooyu noonu yëpp xaritu réseaux sociaux. xaritu réseaux sociaux moom foo ko fekk réseaux sociaux moom moo koy tas ndax gis nañ fi ñoo xamante ne ni dañuy dañuy dem ba dañuy nobante ci réseaux sociaux mm-hmm. sax mm-hmm. nga nit ki di la di la doxaan ci réseaux sociaux yi ñu baal ma ci kàddu di la naxtaan mm-hmm. di la naxtaan ba tey jii nga futti <laughs> ndume yaa ngi ne xanaa dangaa am ay ci <laughs> di la naxtaan ba tey jii nga envoyé ko sa sa photo wala sa benn video hmm. bu subaa bu la laajee dara defloo ko ko photo boobu wala vidéo boobu moom ci lay sukkandiku ba nga xamante ne nii yow da ngay mujj nekk eh, benn xar xaru yar rek ci moom. Eh, loolu mën na laa yeew ko foofu ngay jëm loolu mën na laa yeew am na ñu mën a yeew de yow imaginer tey jii yow yow Moustapha tey jii nii ma lay naxtaan di la naxtaan ba nga futteeku envoyé ma sa benn vidéo <laughs> ma ne la lii nangam laa soxla bëri na fi kilifa yoo xam ne ñu ngi leen di chantage. waaw ah, ñun ñu topp ñu ngi koy dund ba léegi ñu ay appartement ah. ñu ngi ciy jënd ay oto yëpp li ko waral mooy yow kilifteef gi nga xamante ne ni moom ngay incarné boo génnee xale bu jigéen bi nax na la ba am say cër. ne lii boo ko deful ma génn say say vidéo sa vidéo waaw am na ci jigéen yoo xam ne tamit góor mi ngi leen di chantage eh, di leen tëddee wala mu ngi leen di chantage di leen utiliser suba ak la ko waral mooy naxtaan na leen ba am mm. seen video yoo xamante ne nii xëy na nekk nañ bokk nañ ci famille boo xam ne bu génnee tey jii nii dinañ la xeeb dinañ xeeb sa famille wala yow sa bopp yow yaa ngi génn de incarné loo xamante ni bu génnee képp koo xam ne nawloo woon na la dina génn ci yow. Hmm. léegi yow da mujjee nekk kooku daf lay mujjee yeew buum ci baat rek. mais mu la jëmale nga jëm fa. Euh, day euh, am na loo xamante ne ni moom wax dëgg fa rafetul. Mhm. nit ki foo bëggut a egg ak moom rek bul bul bul sa waxtaan ak moom. Mhm. nit ki lépp looy waxtaan ak moom rek mën nga saa egg ak moom. loo xam ba ci man am na yenn vocal yoo xam ne boo ma ko envoyé sax mu leer ma ne yow mii dangaa bëgg ma wax ci ndumbe. Mhm. nga message ma ne ma ndumbe nangam la ma lay njëkk a wax mooy génnal ci ndumbe sama xarit la. mais nag am na yu bari yoo xamante ne ni wax dëgg fa yàlla man moom jigéen ñi laay eh, joxoñ moom wax dëgg fa yàlla mhm. ndax eh, non li may wax dafa leer jigéen foo bëggul góor egg ko fa du ko fa egg billaa wallaay foo bëggul mu egg fa ak yow du fa egg ak yow mais li si de yow ki nga may buntu mu dugg si bunt bii nga ubbil ko bee mu jàll ba mu dem ba sa biir néeg boo toog est-ce ko mën nga ko faa génne day jël caabi sax day jël caabi tëj bi wala mu tëjaale mu ñëw ci beneen bunt bi nga tijjil ko ko beneen du xaar nga tijjil ko moom mooy jël caabi tijjil ko président nag est-ce bunt bu njëkk ba. pour mu ñëw tijji bunt bu njëkk ba moo dul am na domaine yoo am jigéen ñoo xam ne ñu ubbi bunt bu njëkk bi nag comme bonjour. Ah, am na ci ay jigéenam. am na ci ay jigéenam <laughs> am na ci ay góoram sax maa ngi jégalu. waaw <laughs> ah, xamu problème bi mooy góor yi sax mën nga wax mais jigéen ñi moom lu ci bëree bëree bëri ñun ñoo war di moytu. Mhm. ndax tey jii nii euh, am na lu benn kilifa waxoon rek sa papa caga la am na ñoo xam ne. yow sa papa caga la ñu baal ma ci kàddu gi mm-hmm. moo leen di gënal sa baay caga mm-hmm. sa papa doxaan na gelu koñ bi yëpp mm-hmm. moo leen di gënal góoru koñ bépp doxaan nañ sa yaay xam imaginer baat boobu kon xam nga ne jigéen ñi ñoom ñoo war a moytu jigéen ñoom ñoo war a moytu ndax tey jii nii képp koo xamante ne ni dafay xas nit bëgg a tuuse euh, sensibilité ci yaayam la koy jaaree. nit mën naa laa saaga baay sax nga négocier mu jàll mais ku la saaga ndey laal na la moo tax jigéen ñi ñoo war a gën a moytu. waaw kon nag jigéen ñi dégg leen loolu message boobu noonu moom <laughs> bu foor la si yéen bu foor foor la sax wax dëgg fa yàlla nee na ñu saaga la bàyyi sax mooy gën a ne mais am na jigéen ñoo xamante ne nii nga saaga leen yaay moo leen gën a ndax jigéen ñi dañoo féetewoo ak seen papa si yenn jigéen ñi. waaw lool lool day am mais fi may waxee rek mooy que ne yaay. ak lu mën di am rek yaay moo gën a jege. yaay mooy yaay daal yaay mbër la si doomam waaw xam nga ci jigéen ñi moom papa yi mooy gën a nekk seen mm-hmm, xarit. Mm-hmm. mais terewul euh, même ci lislaam sax dañuy wax yaay trois fois. ba ci fois bi soog moo tax jigéen ñi ñoom ñooy defar ñoom ñooy yàq. te mm-hmm. bu ñu defaroo rek. Euh, lépp dafay defaru waaye suñu yàqoo rek lépp dafay daal di yàqu. ndax tey jii kon daal jigéen na tëddee nday ji seex jaaxaanaay. jigéen na tëddee jaaxaanaay tey ji yow. ñaari nit buy sëy sax ku jigéen ki baax ku góor ki bon hmm. moom moo gën ku góor ki baax ku jigéen ki bon hmm. ndax ku góor ki lu mu baax baax su xëyee day dem bàyyi fa ku jigéen ki hmm. mais ku góor ki lu mu bon bon su wàccee day wàcc day jigéen loolu daal kon daal mooy liy jig góor jigul jigéen jigul jigéen moo jigéen ñu war a gën a moytu kon nag jigéen ñi moytu leen bu baax ndax fa yeewa du mën eggu fa te li nga xamante ne nii góor mën na koo def mucc si jigéen bu ko defee du si mucc nay nettali bi day des des mhm. comme tey jii man par exemple sama sama vidéo mhm. lomotif bu génnoon tey jii mhm. nettali boobu du dem sax ci samay doom waaye ba ci samay doom ñoom seeni sët sax mhm. dinañ dégg seen maam moo fi defoon nangam te seen maam moo fi defoon nangam bu dee maam bu góor yow moom ngay gën a mën a diseer bu dee maam bu jigéen jigéen dafa foor que jigéen dafa non maam yëpp maam la mais jigéen moom moo foor ci société bi jigéen moo foor ci société bi ba tey ji lu ñu yëkkati Euh, imaginel yow tey jii bu ñu amoon benn affaire boo xamante ne bëgg nañ koo jàllale muy message sax. Hmm. ci jigéen ñi lañuy lañuy jaare parce que xam nañ ne foofu la message bi di gën a gaaw a jàllee ci góor pour ñu déglu góor hmm. sax ñu déglu jigéen moo gën a hmm. yomb. yow léeg-léeg nga dugg ci kër sax bëgg a am bëgg a am dara ci borom kër gi ci jigéen nga ngay jaare pour eh, wax ci jabar yi ku ci gën a nekk seytaan <laughs> mu jaare ci moom <laughs> ah. nga jaare ci kooku. yàlla ñu yàlla musal. <laughs> kon daal jigéen mooy lépp moo tax jigéen war a gën a fonkaat boppam bu baax si li nga xamante ne nii mooy wàllam internet bi mhm. ndaxte internet na góor ak jigéen ñoo ko seq mais góor ak jigéen ñi ko seq lépp loo xamante ne nii nit moo ngi ko siy def jigéen moo ngi koy def mën naa jël joie si góor pour ñoom ñaar ñu def ko li nga xamante ne tamit jigéen moo ngi koy def mën naa jël joie ànd see keneen ki ñu def ko lépp li nga mhm. xamante ne nit ki moo ngi la si poussé pour ngeen def ko ñoom ñaar xoolal li nga xamante ne nii moo la si jariñ ndaxte li nga xamante ni da lay topp ba say sët say sëtaat mhm. ñu naan lii nii de sama moo ko fi defoon na doon mhm. loo xamante ne nii baax na ndaxte nit dafa lëndëm ki nga xamante ne nii say say moroom yëpp yaa ngi ñoom doon àndandoo bul la mhm. si seppee rek na doon seppi bu baax mais yaag say moroom yëpp ngeen àndandoo ñu seppi la si mu doon seppi boo xamante ne nii dafa bon loolu dafa ruslu te dafa triste daal waaw mm-hmm. te nit ki war naa daw loolu bu baax a baax mm-hmm. nga nekkandoog say moroom toujours ngeen di jëf mais yow jëf bi nga jëf ku ko dégg rek danaan lii de moom lu ñaaw la mm-hmm. loolu war nga ko rus même yow boo ko jombul sax nga jombale ko sa njaboot ndaxte fuñ déggee lu ñaaw buñ ne diw la ñu ne bettu loolu fu ñu déggee lu ñaaw ñu ne diw la rek ñu ne eh, diw bu def lu ñaaw ñaari yoon est-ce que kooku noonu mooy loolu ah, ndaxte am na ñoo xam ne si internet dañuy juum di juumati waaw man na chaque jour te li ma bu ñu juumee dañuy jooy ba seen kanam neewi ñu muuroo seen kol gu ñuul toog di baalu àq te bu subaa ñu delluwaat defaat ko mais am na ñoo xamante nii sax seen i juum di nga mën a xam ne ñii dañoo juum mhm. carrément mais man li ma si gën a metti ki juumul ak ki nga xamante ne nii nit moo xaawi suturaam man nit ki ah, juum man nit ki juum toujours dama koy comprendre ndax damay xamante ne lii ko juumloo nii tey man man na maa juumloo suba. Mhm. wax dëgg fa yàlla mais nit ki nga xamante ne nii juumul dafa def ay mbiram ñu tegal ko ko si digg marché bi di ko ko jaayal man loolu moom ma gën a metti mhm. moo tax li nga xamante ne nii yaa ngi koy def war nga see xool bu baax a baax ndax am na ñoo xam ne moom pour ñu yàqalu ko am bonjour buñ na am na am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñoom loolu la dundee li ñuy dundee mooy eh, tey jii nii yow am nga sa benn noonu am nga benn videom am. Hmm. wala am nga benn audio am amaana bu mu doon waxee nit te wax jooju noonu bëggul mu génn wala am nga benn photo am wala xamal nga ko lenn loo xam ne bëgg nga koo siiwal te yow bëggoo ci siiw da ngay dem ci kooku nga fay ko xaalis bu weex taal mu génn def live. Hmm. maam Ndiaye Savon naan live-al ma. <laughs> wala mu jël ay application montage ko daggate la. waaw def wala sax mu jaral la yenn saa yi mu jaral leen ñuy def montage wala di sos am na ñoo xamante ni ñoom loolu la ñuy dundee ci réseau sociaux bi nit fay leen pour ñuy yàq deram dem ba ci biir réseau sociaux yi sax am ci ay euh, groupe Facebook wala Instagram yoo xamante ne nii noonu lañ koy tuddee ay toppukaa lañ. mais am na ñoo xam ne man lu leen dal rek dama dama dama dama leen koy yéene. yow mënoo gis groupe boo gis nga assisté aussi am na ñoo xamante ni kenn du leen wax ndax ma dugal la si groupe. ñooy ñooy jël sa téléphone dañ si kumpa ba pare ne la sa group bi dugal ma si groupe nangam dugal ma si <laughs> ah, yow ngay rangale group ba rangale ay quarante group li si tey bu nekk nga bëgg xëy euh, dugal si sa kàddu waaw vocal fa pare nit ñi di la tontu bala ngaa bala ngaa vocal fii bay vocal fële ñëpp raw la nga pare bëgg jël sa temps an yeeraat léegi yow ñëpp liggéey nga xëy toog si sa connexion di xaar mu wàcc léegi connexion boobu nag est xam nga ne lépp da nga koo mais te te te yow da ngay fay whatsapp di fay tiktok te ñoom fayuñ la dara. fayuñ la dara mooy li nga waxoon si départ bi rek. li nga mhm. xamante ni waroon nga fi investir moom nga jël sànni ko si internet ba. te jàngoo si benn xam ñuy dépensé ci connexion te mënuñu leen ne lii la sama lii la ma sama whatsapp bi di jariñ. te mayu leen benn xam-xam. te am mayu mayu leen xam-xam mayu leen xaalis. man mën na ma comprendre ki nga xamante ne nii sax day xëy di wut information boo xamante ne nii. Mhm. da siy jariñu. wala ki xëy di déglu journal boo xam ne da jariñu mm-hmm. te mën naa am temps bi muy am pour déglu rajo da koy fekk ci bërëbu liggéeyukaayam wala yeneen mm-hmm. mu jënd connexion jàppoo si internet bi passe Baol Média di déglu information yi nga xamante ne mhm. dafa leer te wóor kooku mën naa ko comprendre mais ki nga xamante ne nii toujours li nga xamante ni moom la jël yàq ni donc moo tax mu jël ko si mhm. loolu noonu moom doonu loo xamante ni rafet na te doonu loo xamante ni tamit baax na xëy di seetaan ay live ak kaa <laughs> loolu amul solo <laughs> waaw ñii def yëfi daf daal nañ ko bàyyi ñii def yëfi ah. nit ñu encouragé leen waaw mm. ndaxte nit ki saa ko encouragé rek yokk nga dooleem quoi jigéen dee ko wax waaw kumba góor nga naan ko waaw góor mm-hmm. dina góorgóorlu ba yokk li mu mais jigéen gi tamit dina jàmbaar ba yokk nga xamante ne nii mënoon na ko mm-hmm. waaw amee ah, na ñu ngi jëm ci càppaandaw émission bi ndax cinquante jot na te ñoo ngi ñuy siñaale mhm. ki war a def émission toog na dafa war a def émission ngoyaan boo xamante ni dafa am solo lool macha allah mhm. ñëpp a ngi toog di ko xaar dan lay jox rek nga daal di tàggatoo tàggatoo bu dul tàggoo waaw xanaa di tàggu ñëpp rek waaye tamit di jéggalu ci kàddu yi léeg-léeg moom <laughs> ñu xaw a déborder waaye dañuy dañuy comprendre rek comme tey moom Euh, dañ ñoo dénkoon émission bi rek. Hmm. j'espère que gérer nañ ko rek xam naa daal. di jéggalu ñëpp rek ci gépp kàddu goo xam ne rek dëng na euh, te xam ne du suñu. Euh, jikko waaye xëy na matadik doomu aadama lépp lu ci jub tamit ñu xam ne du suñu mbaax waaye mbaaxu suñu borom la kon ñi ngi jaajëfal ñëpp rek jox leen rendez-vous man xam naa suba ci émission Baol matinal bi laa leen di jox euh, rendez-vous euh, waa tey fii la euh, ñoom xam naa dinañ fi teewaat mardi ni lay demee rek tey fii la mardi bu jot quinze h 30 Euh, jàpp 17h euh, ci émission yoo xam ne ci thème yoo xam ne tamit dafay wax ci wàllum société tey li ñu doon waxtaanee di réseaux sociaux kon euh, ñi ñuy doon déglu j'espère que suñu wax ji am na ci lenn loo xamante ne ni jariñ nañ leen lépp loo xam ne njariñ la ci rek ñu daal di koy jël te daal di koy sant suñu borom jàngi. wax ji am na solo jaa ngeen jëf kon ñoo ngi jaajëfal képp koo xamante ne ni yaa ngi ñu doon bàyyi xel depuis 15h30 ba léegi seen émission tey fii la tey nag lii la woon émission bi ñu leen tegal j'espère que na leen eh, képp koo xamante ni tamit yaa ngi déglu émission bi mën ngay woote si service yi boo xamee am nga émission boo xamante ni bëgg nga ñu waxtaane ko wala lépp loo xam ne bëgg nga ñu waxtaane ko laata ñun ñi toog fii di waxtaankat yéen la ñuy waxtaanal ndaxte ki nga xamante ne day wax ki koy déglu la am yéen ñi nga xam ne yéenay déglu boo amee loo xamante ne nii bëgg ngeen ñu àgg si rek ñun dinañ si àgg bu fekkee ne dëppoo ay sart te dëppoo ay teggin yoo xamante ne nii dañuy daw si biir dëkk bi ndaxte dëkk bi ñu nekk dañ koy jox war moom bu baax a baax a baax ñu ngi jaajëfal képp koo xamante ne nii yaa ngi ju doon déglu di leen wax caaw caaw ba beneen baay